dañuy saytu ñu am plaisir gis nga plaisir looy xëcc la waaw gis nga boo nekkee góor da nga naan takk sam xel ngay ànd ba mu toll ak niveau bi nga toll nga ne jàkk sa jëkkër di ko xool gis nga lamsal bii ak piis bii ak jàkkaarloog sa borom kër amour di ko xool bëtu dama laa nopp mooy xëcc mooy xëcc plaisir mënoo di say bëgg a xalaat yaa ngi dégg natt ba ma yore wala kañ laa war a dem suñu kër wala xaalis bi ma war a jot munoo ceeb boole di yëg sa bopp yëg sa bopp dafa ànd tranquillement nga concentré wu ci sëy bi ngay sëy di xëcc plaisir bi danga koy xëcc di ko xalaat tey su ma doxoon fekk diw ak diw nekk nii xam nga jigéen bu fekkoon tey bu doxoon tey ba fekk góor jigéen ñu nekk tey naka sudu noor nga taxaw di leen imaginer loo dee dee yow jigéen di nga yëg dara yaa ngi may comprendre loo dee dee yow jigéen di nga yëg dara ka kasa yaa ngi gis góor ak jigéen ni ngi nekk nga taxaw di leen xool boo leen ne jàkk benn temps loo loo mu dee dee dee dee yow di nga yëg dara ci sa digg ci sa xol ni ka lii maa ngi ci senti plaisir plaisir boobu na ngay xëcc boo nekkee ak sa borom kër plaisir du moo lay fekk si yow yaa koy woo kon nag jigéen ñu bari ñiy jooy naan ñu dañuy nekk suñuy borom kër duñu du ñu yëg dara yëg dara yow looy xëccal sa bopp la pour am ko nga nekk ki nga nopp di ko sentir di bàyyi sa xel ci li ngay sëy ak moom mën a yeggante ak moom fenn fii kooku yow yaa koy liggéey mais plaisir du ñëw ne la maa ngi nii kaa yëg ma yow yaay toog di ko xëcc ndànk di ko yëg ak say feem moo tax kaw la lu dara jàng la barki Serigne Touba kaw lal ci biir néeg jigéen ñu baree ngi sëy te xamuñu lu yëg seen bopp pour ñoom ñu yegg xamuñu loolu ñoom ñu ngi sëy sëy jot na sëy nañ ko pare nañ ci xamuñu ñaar xamuñu benn xamuñu ñett parce que jànguñu ko loo jàngul doo ko tari te gis nga biir néeg bu ratee ci yow sa léppay rate dafa am nag jigéen ñoo xam dañoo mën néeg te daje góor ñoo xam ni xamuñu néeg foo leen yegg plaisir ba ëpp ñu yegg ñoom xale ngu dem féete na la tëddi te góor moom bu xasee ba yegg mënatul am mënatul am njariñ day daal di tëdd fee nag ni naajo bu yàqu doo xam noo koy def am na góor ñoo xam plaisir ba ëpp boobu xamuñu ko comprendre nga ñoom dañoo tële néeg gis nga góor ñi ay qualité la comme ni jigéen nekk ay qualité noonu la góor ñi mënantee da nga daje góor goo xam ne tarkal la bu la tegee loxo sax nga xam ne góor teg na la loxo am góor ñoo xam mënuñu laa yegg fenn mënuñu laa satisfaire fenn ñoom sooy jot na nan ko sëy ma dem tëddi nga tëdd mu jeex du noonu am góor ñu mën laal jigéen ñu talee laal yàlla moorul boole ñaar ñu ànd foo jaar kii mën kii tale waaye nag bu dee ñaari couple la góor gi mën ku jigéen ki tale ku góor ki na gindee ku jigéen ki ba mu mel ni ko neex gis nga góor bu takkee jabar ci xale bu ndaw lu mu bëgg ci moom mën na ko ci am parce que lan day fekk xale bi yow la xam yow yaa koy modifié ba tàmmal ko ci yow li nga bëgg mu di ko dund ak yow te dala ci fekk si bu dee nag ku jigéen kee mën néeg daje góor goo xam ne xamul mais bañul ko ko xamal na dafa am góor ñu naqaree xamal nag li ñu sentir la ñuy def góor lu mu bañ mënuloo ko ci dara jigéen ñu bari ñu ngi souffrir loolu dañuy nekk seeni borom kër bëgg a ak ñoom fenn fi jonge ba nelaw dañ lay woo Mbodia Mbaye ñun dañuy jongee ba tëdd ci suuf li nga wax yépp la ñuy def wala sax ñu romb ko wallaay azim mais suñuy borom kër ñoo lànk munoo ci ñoom lenn foo bëgg ñu yegg la fa duñ la mën a yegg et eh, xoolal jigéen day soxla boppam ni góor di soxla boppam gis nga ni góor di yeggee ba yegg boppam ba yegg ba xalangu noonu la jigéen di yeggee boppam ba yegg ba xalangu kon tamit góor nañu satisfaire jigéen ñi ci biir néeg yi da ngeen di soxla seen bopp jigéen ñi dañuy soxla suñu bopp te am na loo xam ne boo ko bëggee say ak jigéen bàyyi ko après moom it beneen problème la koy andil moo waral jigéen di wéet en général di foo boppam parce que li mu soxla ci jëkkëram amu ko moo waral jigéen di génn di fo comprendre nga kon nag ni góor ñi tam ñi nga xamante ni ñooy waaye dencante yi nañ il faut ñu communiquer ci biir néeg yi te xam nga tamit lu ci bari ñàkk communication de ci jëye bu baax a baax heure baax baax yi bari na waaye heure baax baax yëpp yeewuwaale ci dàq <laughs> bébé li muy laaj ëpp na waaw fajar gi ci sedd bii heure bu baax bi dëgg dëgg dëgg mooy fajar bu ne allah ku bar ku nekk war a jug sangu jàpp julli foofu loo fa def neex na <laughs> ak na nga koy defee pour sëy nag amul heure bu baax ak bu bon bëccëg neex na yoor-yoor neex na tàkkusaan neex na ci temps sedd bii foo wéete pour man ak sa borom kër gi nga nopp bëgg ko di ko sentir et loo fa def neex na amul heure. xale yi lay laaj question boobu amul heure sa borom kër su surtout weekend samedi ak dimanche asamaan si sedd guy nga bàyyi sa ànd ba mu nugg fël sa cuuraay lii lekk ba suur tëdd sa jëkkër ay eh, xoola foo ko centré nekk ca amul heure mais heure yëpp nag boo ko dee dajale di ko tàmm njëkk soo ko tëdd ci dàq ak bëgg a yeewu ñaari heure yooyu ne ko jeggi di xool buñ ko dee def duñu am defit mukk te góor danga ko yàq ci biir néeg góoru sedd góoru nawet ñaari góor yi dañoo yomba jàpp tàngaay sax mun ngay féexlu ci mbedd meeg yooyu mais boobu dañuy fatu far force foofu ñu fatoona foofu ngay mën a amee sa jëkkër bu baax mën a gérer lu bari moom góor yóor gi ngay toj da nga njëkkante dëbb yóor gi ba mu mokkur ma xamante ni fa mu doogee gisu la day réer boo ko meree mu ne ci kër gi di fu na mu bool bu na mu randal ko kaas bu na mu randal ko ndox mu na mu naan ko ndax lan xel may dem ndax kan ki ma bëgg mu tàmbal ma lu neex tey damaa mere moo tax gis nga jigéen dangay ngay góor ba foo dem mu xalaat la yow yaa koy liggéey te jigéen ñu ci bari foofu la ñu réere wala way ilaa ñu mën ko te góor gi ñu nekkal nangu leen cee fekk si bébé lii mooy wax ci ñaara ñett ak ñeent nag ci teet doy na ci ndax fi mu doon ne góor ñu ngi fëgg ñu mën ñeent mun bareetul de ñaari sax dañ koy négocier mais nag ab jéeg dëgg dëgg tamit nag ñaar la doy na ñaari paax moom am na góor ñoo xam bu jëlee seen benn sax doo xaar ñaar <laughs> am xam ne boo jëlee seen benn bébé wallaay azim doo fa xaar ñaar kon ay benn ki ñeent yu amul njariñ ñaari am doole ko gën fuuf nga tegle ñeent yoo xam bu ci nekk day mel ni kenn yéegu la nga tegle ñaari baax ko gën kon sëy bu bari boobu tamit nga bëgg ko loo góor te kàtt na mënu ko wala nga di ko jox loo xam da koy forcer mu di ko pousser doo am plaisir moom it du am plaisir mbir mi temps la nga bàyyi ko mu ñëw boppam ngay foog sa borom kër muy xëcc plaisir mu koy xëcc ba ngeen daje foofa neex comprendre nga mu doon booy soog a tëdd ak booy bëgg a yeewu ñaar yi daal doy na sëkk cib néeg waaye nag foo tourné ñeenti sëy ki juróomi sëy yoo xam ni boo ko teglee mënalu la dara benn bu baax sax mu baax na ndax sëy bu bari boobu tamit en général du baax ci ku góor ki te du baax ci ku jigéen ki te góor war nga foo ko fëggee mu jug te jigéen ñi ci bari ñoo xam ni nga lay utiliser boo xam bu ëllëgee bu la fëggee ngay nooy nooyal ñoo la fay njëkk a baax kon nag yow góor ki del xam na koy defee boo amee sa benn bu baax baax na soo amee sa ñaari baax doy na waaye ay ñett ak ñeent moom boo ko commencé góor doo ko yeggale góor ndax di nga toll fa xam ku góor ko du ko mën yow doo ko mën kon sëy du doole xel la il faut nga jiital sa xel ak sa xol soo ko mën a maîtriser li ngay def. si 631 31 40 78 631 31 40 ci numéro boobu boo ci wootee di nga jokkoo ak soxna Mbodia Mbaye ñu daal di waxtaan ak noo ko bëggee ci numéro xelal ma boobu incha allah bi kaw ànd situation boo ànd rek dina ci mën a ko waxtaan ci bu baax.